ni Pape Sarr wax noo ko gisee. non bul ma dugal ci dimension yooyu Pape Sarr suma frère la mu ngi dëkk pikin man ma dëkk Guédiawaye li muy dund rek laay dund Pape Sarr man dara méttiwu ma ci moom ndax nit bala ngay baax da ngay gëm li nga nekk Pape Sarr lu mu mën a wax ñun dañ koy rafetlu c'est parce que du question Pape Sarr man dama nekk kilifaam ndax magam la jàmm la ñu mës a séq mais day wax choix day wax bëgg-bëggam pour may di contrer Pape Sarr naan lii yow sax yaa ma tooñ ni ma Pape Sarr mais dogu naa ci Serigne baaw Sy décidé wu ma ci sama wàllu kàddu may tooñ kenn même moo yii may déclenché di ko wax lépp loo xam ne ñaaw na ci rek nañ ma ko jéggal te nii ma ko waxee nga tege ko noonu bu leen ñëw di xool li baax di ko dagg li bon ngeen di ko génne. wasaare du def loolu. su fekkee ne juum naa ci kàddu gi nañ ma jéggal ndax wax ji ñu ma ci ñoom ñoo ciy fayeeku ñoo ma wëree nu ne pour ma wax wax jot may wax. di fait que Guédiawaye à cette heure-ci Balla numéro 1 yàlla na ko yàlla jéggal génn na àdduna Daouda Fall génn na àdduna yàlla na ko yàlla jéggal Mor Fadam génn àdduna yàlla na ko yàlla jéggal xale boobu doon leen topp mooy jaw mii tey yàlla dogal na fii ci wàllu làmb tey fii ci biir Guédiawaye ku ma fi ëpp xam-xamu làmb doxatu fi ma bokk ci ñi ñu ràññee ndax dama ko liggéey kon nag à cette heure ci ñaaw na may génne sama kaddu luy jaxe jaxase Pikine wala yu joxe ci Guédiawaye wala yu jaxase Parcelles Modou loo contre Balla Gaye dama ko tagg ba ñu yàggan dafa maa jox xaalis su ma mënul wax lu baax damay noppi te lii ma wax da ngeen ko génne ba nga laaj ma leneen